Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk yi am di jaam yàqari di yéen ñi nga xam ne yéen ay ak ñun ci Touba Monde bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di leen balaax te di leen balaax ci bis bu tedd bi muy bisu xasida yi kenn ku ne xam ne ne am solo gi nga xam am na ko solo waaye ak faka Cheikh Ahmadul Khadim ah, rek ah, faka Cheikh Ahmadul Khadim ah, tegon Euh, mu nekk lu màgg lu rëy loo xam ne euh, mboolem mbokku taalibe yi jóge nañ fenn fu nekk ci àdduna wëngal këpp rek ngir màggal li nga xam ne mooy xasida Cheikh Ahmadoul Khadim tey ñu mel ne dañoo gisoon euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy daayira muxadamatul xidma kenn ku ne xam ne ne siñasan xidma ku ko gis saxel nekk ci jumaa ja waaye saxeel nekk Touba ñu fës ko yéene rek laaj yéenati laaj siñasan tey boo ñu doon leeral li nga xam ne moom mooy liggéeyu muxadamatul xidma lan nga ñuy wax waa jërëjëf waa jërëjëf sëñ Naar ñoo ngi lay siyaare euh, di wax waaleykum salaam wa rahmatullah euh, ginnaaw bi ñu jiitalee siyaar bi sëriñ Touba Cheikh Modou taxa di ñaan yàlla mu yàgg fi lool euh, di siyaare tamit njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp di siyaare umul islaam bi yépp di am mbégte lool nag tey jii ñoo ngi fii ci Euh, Touba Milan ci Italie euh, tey jii ñëw fii ci bis bu màgg bi nga xam ne bisu Serigne Touba la boo xam ne euh, muy bisu xasida boo xam ne tey jii damay wax ne Italie tey kenn desut loolu nag xam naa ne lu Serigne sëriñ Touba suñ borom moo ko fay ndax mbooloo mu toll nii te seen yitteeg seen yëngu lépp di sëriñ bi kon daal li ñuy wax mooy jërëjëf rek Serigne Touba. am bekte lol nak tay teewal fi daayira mukhadamatul khidma bi ñewé tam ñu fekk fi wa serigne Modou mbay cham fekk fi tam serigne Daaru Touré ak serigne Ibrahima ndjay khassida online ñom nak ñi borom taxaway yu reey yo xamné kenn ku ne xamna ne seen taxaway ci liggéeyu daayira mukhadamat khidma taxaway bu reey reey reey la. yàlla def na tamit bi ñu ñewé tam fi gis nga liggéey yi rek Touba ci kanam lañ lañ taxawal ni ñom lañ bokal ben ben table bu ñu tok Euh, am mbégte lool ci ñoom sëñ Diop ñi ñu fi fekk di wax ne tam liggéey bi yàlla def na euh, fii ci Touba Milan gi nga xam ne fi la bis bi xewee tey fii mooy sees bi nga xam ne tam fi la seesu Moukhaddamatoul ma nekk ñu taxaw ci taxawaay bu rëy ànd ko sëñ Ilimane Bousso nag sëñ Ilimane Bousso euh, di di di di rakku sëriñ Afia Bousso al imam nekk ci Touba Bari ñoom moom itam ñu représenté daayira bi ci ci côté Bari ak li ko wër te kenn ku ne gis na ne tey ren liggéey bi yaatu na yaatu na yaatu goo xam ne euh, communication bi tam bi nga xam ne waa daayira waa Touba Monde bi télévision def nañ ko ci ci bi bi ñu bi ñuy jëmmalee liggéey bi ànd ko sëñ Saliou Sy boobee ak tey liggéey bi mën naa ne xam gi amoon na waaye tamit jàpp ji euh, bi bi bi bi sees bi sampoo fii ci euh, Touba Milan boobee ak tey ji gis nañ ne léegi réew yu bari ñoo ngi ciy jàpp kon nag suñ ñëw fii tey bu ñëwee fekk itam waa daayira mi laa jëmmal fi lu mel nii ngir leeral liggéeyu daayira bi ci wàllu taxaw gi nga xam ne tamit euh, ñoom fas nañ ko yéene jàpp ci liggéey bi ngir lépp lu aju ci liggéeyu daayira bi lépp lu yittey daayira bi ñu def ci seen yitte ànd koog mbooloo mi loolu euh, am na solo lool. kon nag liñ ciy wax mooy ginnaaw bi neen leen jotalee nuyu nuyoob bi kaddu daayira bi sëriñ Afi bu sal imam ñoo ngi wax itam ci turu daayira bi di soññee di fàttali liggéey bi. ci taxawaay bi nga xam ne tamit euh, soxla nañ ko ci liggéey bi ndax daayira Muxaddamaat Xidma damay wax ne mooy daayira bi nga xam ne mooy yoral Serigne Touba jumaa ji moo yor lépp lu aju ci biir jumaa ji ci lépp lu koy setal ak lépp loo xam ne moo koy taaral daayira bi tamit kenn ku ne xam na ne yitteem ci liggéey bi euh, moom mooy taxawu koor gi buñ gisee ndogu yi euh, leeral lañ leen ko daaw lu toll ci daanaka bit sëb 42 millions matoon na ko ci euh, loo xam ne bilan la boo xam ne def nañ ko ci ndog yi bu ñu xoolee tamit la aju ci la fay ñëw dangay ngay mën a xayma ci ñeenti junni wala ñetti junni ak nangam yoo xam ne ñëw nañ ci biir jumaa ja di fa ji kon nag loolu bokk ci lii daayira bi di taxaw daayira bi tamit kenn ku ne xam na ne moo yor euh, mooy taxawu tamit euh, Touba Baqiya moo yor liggéey bi daayira bi moo yor lépp entretien lépp loo xam ne lu ñu war a defar ci jumaa ji daayira bi moo ko yor kon nag bu yàlla dogalee tey jii waa Touba Italie am yéene yaatal liggéeyu Serigne Touba bi am yéene woote ko jël liggéey bi indi ko fii ci euh, ci ci bisu xasida bi indi fi carte yi nga xam ne tam mooy carte de membre yi carte de membre bi nii biñ ko xoolee moom moom lañ fi indiwaat ngir ñoom ñu ñu bëgg koo gën a yaatal bëgg koo wane ba képp koo xam yaa ngi ci biir Italie nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma euh, ñoom tàllal nañ loxo àdduna bi yëpp euh, liggéey bi nag comme niñ koy waxee liggéey la boo xam ne kenn ku dégg na Serigne Touba ak jumaa ji sëriñ Tuubaa waxoon na ci liggéey bi ne wax fir li man banaw binaa aha rafi wax fir li man bi bii jami alhamdulilah nag bi ñu ñëwee fekk fi taxawaay yu rëy nii taxawaay yu kawe nii yoo xam ne télévision Touba Monde bi ñu ngi koy dox di ci def taxawaay bu rëy fekk fi sëñ Idrissa Diop fekk fi si mboolem ñi nga xam ne tam ñooy membre yu daayira Muxaddamatul Xidma ci jàpp gi ak ci yaatal gi loolu sunu xel gën na cee dal kon ñoo ngi lancé appel ci àdduna bi yëpp foo ay nekk xam ne liggéey bi Euh, fii ci Touba Milan mooy seesu daayira Muxaddamaat Xidma ñu ànd ko ak sëriñ Afia sëñ sëñ sëñ Ilimane Bousso ci Touba Bari euh, sëñ Daaru Touré di jëwriñ ji ak sëñ Ibrahima Ndiaye xasida online di jëwriñu daayira bi képp koo xam ne tam soxla nga ci soo soo soo dégganteeg télévision Touba Monde bi wala rajo rajo rajo xasida online incha allah da nga da nga da danga da nga da nga ànd ci biir liggéey bi kon daal liggéey baa ngi nii di jot eh, li nag mboolem cantuk daayir bi yep yalla nanti dajje ak barki waqda waay ji lisina damo fi khidmati wa ablahum maaraamoo ina lisina saarahon li khidmati falahum dayar wasal jannati waaw jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Moustapha Touré ñong lay sante bu baax di la gërem di sante seigne Modou ak jëwrin yi nga xamna ñom ñep tew nañ ma bàyyi naar wadd bu Milan ah, ñing lay sante di la sante ah, mbooleem ñi nga nekkal ah, xana di ñaan rek eh, li seigne Touba nan wax di awa ijal la siina fi khidmatin wa hablahum maramo yal nañ dugg ca euh, ñaan googa ndax Serigne Touba dafa wax ne sama daraja yàlla da koy yëkkati bés bu set day gën di kawe darajati bilantihaai yarfahu waaye lu ca teg wallaahu lii yan yanfahu yàlla it daf may dimbali ndimbal loo xam ne du dakk mukk kon bu fekkee ñun ñu ngi ci àddina di dund sëñ tubaa wax loolu muy Masaalikul Jinaan muy Touba ca kanam lépp lu ñu jëmbal nañ fexe ba parafitoo jàpp ne suba la ñuy faatu li nga am nga def ko ci tey ndax mooy tax bis bu ñu lay sang ndoxum tubaa sama xel dana dal kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu leen andiloon tey ci euh, personnelu Touba ci kanam euh, bokk jullit yëpp jàkkaarloog ñoom ñii ñu soññee ci soññee yu am solo kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Touba Xaadim Rasul bind ci mbindam mi mu wax ni wa kasirana xayraati hëzal baladi wa risquhu wal takfi xan nakadi booba la muy wax foofu Touba loolu rek la Touba ci kanam moom lañ bëgg a def fexe ba Touba nekk réew mi gën a riche am sécurité nag te loolu ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax ku làmb daj ku xool gis wasalaamualeykum jërë ngeen jëf sëñ Moustapha ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga tase ceeg fayu Serigne Touba gis nañ sa liggéey bu baax ci Touba ci kanam. noo ngi aman mbégte bu baax a baax a baax ci micro trottoir bi nga xam ne ñu ngi koy def depuis ci ngoon ba tey. dale won ko ci biti taxaw ak magni taxaw ak ndaw yi kenn ku nek wax deug yàlla def ci soñé bu am solo ba ni ñu ñëwé ci kurelu Touba ci kanam gi nga xamné li seen yitte moy li seigne Touba doon wax naan Touba li habdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati waye ba tayit bi may waxé naan wax di awaa ijil la siina daamu fi khidmatin wa hablahum maramo baña ci joggé nak ñi ngi ànd ak ko xamné yakarna na yéen ñi koy sétane ci Touba Monde bi di rajo Xassida online xam ngeen ko muy Serigne Saliou Dione taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim di ab jullit xaqan di koy am xam-xam di jëfandikoo xam-xamam ak di soññee ci xam-xamam te it li am solo mooy li sëñ Touba waxoon na ngeen góorgóorlu ci xam te bu ngeen xamee na ngeen di jëfe na ngeen fexe bay layal xam-xam loolu nun nun doy nañ ci exemple ci ne ñun xam nañ ko bu baax kon sëñ Saliou kon xam nañ na yaa ngi jóge ba Emilia Romagna muy Bologna ci lii ñuy def tey nga xam ne moo fi dajale ñëpp te sëñ Tuubaa wax na ci wax ju rëy ndax karaama la wax na ne na mooy karaamam karaamati xattu yasi xattu yadi wali jasab ansamahu rabbi fan jasab kon sëñ Saliou tey buñ ñu taxawee yow ci programme bii ak ndaje mii jullit yëpp daje fi murit yëpp daje fi anatal lan ngay soññi jullit yi ak taalibe yi ak ndaw yi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خدمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلتي مبكي طالبي نغلن دي نيو زيارة دي لول تي تخاو جينو تخاو أكسن مصطفى ميكو باخ دي بروم خم خم دي ليغي يلي خم خم دي كو جار لتي طولب سرين توبا waaw di ñaan tam Seex Muhammadul Muntaqa suñu borom guddal aw fanam bay kook ak weram ak xelam ba mu metti la ay naalam yëpp ci liggéeyal maamam te nu ànd kook moom noonu la koy ñaanal Sëriñ Seex Jëmb faal mu fi nekkal Seex Ibrahima Fall. waaw comme ni nga ko waxee rek bés bi moom bes la boo xam ne bés la bu mag di bés boo xam ne bésub faggu tiyaabo la ni ma koy faral di waxe Sëriñ Tuubaa dafa dafa yéewu dafa muus dafa ñaw ñiko yaakar dafa bari loolu aduna ak alakhirah fokk nak mom mo xam nan lay def bu ñom ñiko yaakar bu ëllëgee sen yaakar du tass comme bés yu melni nak dafa bok ci bés yi nga xamne nit ki mën na ci amé lo xamne bu ëllëgee yowmal khiyam bu téwé fa kanamu suñu borom téw fa kanamu Serigne Touba mu am fa lo xamne dana ko fa doy sek nga xamne waxuma la liggéeyam Serigne Touba waye mom limu ci amal bopam rek da ko ci da ko ci doy sek ci joxe joxe fi sa alal. ak sax bay gi nga bay sak jot rek waroon na noplu waroon na dem fi bereb nga ñew tew ci bereb bu mel te dara taxula tew lu dut jëmi yalla ak jëmi yonentu bi ak jëmi Serigne Touba te lolu moy xasiida yi nga xamne mo moo nu fi kun lolu don lu ama am solo am na xisa bu gud bo xamne duma ko mën tenk duma ko mën andi ngir guddaay bi serigne Touba don wax ci njëriñal xasiida yi waye waxna ci ñi nga xamne bok nañu bok go xamne fu ñu dégg xasiida rek ñu ko fay jàng mu jaral leen ñu sol seenu dal dem bo aggi fa teewe ko donte sax mënuñoo jàng xasiida mënuñu koo bind waaye bëgg ko rek ba mu jaral leen fu ñu wootee xasiida ñu dem teew fa loolu nag yaakaar naa mooy li fi tax a teew ñëpp muy dundal xasiida kon loolu lu am am solo la maa ngi koy wax sànq bi may ñëw ma ne xasiida yi Serigne Touba nee na man ba mbax bu leen sikka ne xasiida yi ñoo ma gën a gaaw mel ni loolu daa jaaxal mag ñu ne ko ndax yow am na ku la gën a gaaw ci yóbbu ci yàlla mu ne xasida yi léeg-léeg ma gis nit mu àgg fi suñu borom ci mu àgg ci suñu borom ci maqaama mu kawe kawe kawe te man Bamba suma koo gi ci samay bot mosuma sax a dégg aw turam te ma gis mu àgg foo xam ne xaw ma lu ko fa yóbbu te mu bokk ci sama njaboot hmm. eh, nee na su ma laajee suñu borom suñu borom moom mooy xamal ne sax xasida yi ci la jàpp bu àgg fa ko war na yóbbu yow kon xasida yi noonu lañuy noonu la ñuy def kon loolu lay wax tuwasilu aqlaami tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin mhm. wallahu abqa kama agna waaw nee na samay xasaayit day yóbbu nit ki ba mu àgg ci yàlla mhm. te du xulwa du beru bu jekk nit ñi mhm. nit yàlla yi da nga daan gis ko dem ci àll bi dafa ñeen fukki at ngir bëgg a àgg ci yàlla beru di lekk ci ñax mi di lekk ci xobi garab yi gis koo xam ne da daan beru fanweeri at gis koo xam ne juróom ñaari at léegi nag taalibe yi li leen àggale ci yàlla dañuy solo ba rafet ñëw ci ndaje yu mel nii dégg nga de di jaxasoog nit ñi te taw nag ñoom ñu ngay ak ci suñu borom hmm. na nga xam ne ña bér woon ca xur yaak tun ya noonu lañ doon ak ci suñu hmm. borom loolu mooy gaawaayu xasida yi nga xam ne ci jàng gi ñu koy jàng ak déglu gi ñu koy déglu ak bég gi ñu ciy bég ak joxe gi ñu ciy joxe seet addiya hmm. ci la ñuy àgg ci yàlla waaye nag dafa am lu ci xew mooy sëñ Touba dafa mën a defar di nga gis koo xam ne xasida yi yóbbu nañu ko ba mu àgg fa ñu njëkk ñi agoon waaye moom du ko xam ndax sëñ Touba tey da koo tax da li nag ci moom sëñ bi de ko koy dencal mm-hmm. moo tax yow miy nab na ba ci xasida yi di ko durus di ko jàng mm-hmm. boo yëgut dara yëgoo karaama yoo xam ne ñu njëkk ñi dañu ko doon feeñal mm-hmm. bu mu tax nga yaakaar ne amoo dara déedéet sëñ Touba moo fam ndab li denc ko ub ko ba li ci nekk yow mi ko moom sax doo xam ne dara ci waaye ëllëg yow ma tub la sarairu ca lay feeñ ca la ñuy xamee mbootum xasida yi eh, eh. am na xisa boo xam ne kooku nga xam ne daa faatu woon soxna su ci njaareem waaw te mu faatoo sëñ Touba wax ko gaaw a denc. Hmm. damay tënk xisa bi rek. bi ñu ko dencee ba pare. sëñ Mbakke Bousso di laaj sëñ Touba lu tax nga yàkkamti ñu denc ko xanaa ay ñaatee fam yu bari moo tax. waaw sëñ Touba ne déedéet waa ajana ñoo ko yàkkamtee jël yóbbu ko aljana. Hmm. lu mu def. mu ne daa am doom ju ma kal wen bay ci xas yi daag mi daa di waa xalaa mi li man saa saxal yemma kama saa saxal saytaana wala jaal wal xamaa te mboot yooyu mu ngi nekk ci jànqati xasida yi ba léegi waaye nag sëñ bi àdduna da koo tax a di naaw ci jaww ji ak dox ci ndox mi di wane ay xar baax comme na wali yu njëkkee doon doon defee loolu italut sëñ bi sëñ bi ëllëg ko tax a jóg loolu li ci dongo yi mhm. ak li ci yi du feeñ fi waaye ëllëg lay feeñ jërëjëf bismillah jërëjëf tabarakallah sëñ Saliou ñoo ngi lay sant bu baax soññee bi jotale na ta xam-xame na tayit wax dëgg yàlla doyaleesu ci ndax wax ku la xam ku ne nga ak di waxtaan du doyal kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm na la suñu borom def magum l'islam mu sax ci l'islam di ko jaare ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñi ngi lay sante di sante mbollem ñi nga xamne ci fekk nga leen fi di sante mbollem ñi nga xamne ñanga fa bayyi fa bàyyi wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf. lii mooy li nga xamne mom lañ leen doon jëlal ci micro trottoir ngeen gis ne mbokki Sénégal yépp dajé nañ fi muy ñi nga xamne ay commerçant lañ te bis yu melni dañ koy dak na xamnañ li ci nek ci ay ah, recette fenn fu nek ñu ñëw fa. ñi gëj a gisee di gisee ñii bëgg bagage yi Sénégal di ko fi fekk jaaykati xasida yaa ngi nii ñi koy wecciku ngeen gis ko nii ba ca fond ba fa ngeen di gis lépp ay weccikatu xasida yi ñoo fi nekk te lii lépp sëriñ Tuubaa ko bind te lenn bokku ci ak morom ja kon li mu waxoon ne karamati xattu yet yi wali jasab ansamahu rabbi fan jasab kon loolu boo xoolee lii rek da nga ko mën a confirmer te ni ko ñii lale ni la ko ñee lale ca gannaaw ak ñii nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ca fond ak yeneen bagage yi nga xam ne ñi ngi ko yor fenn fu nañu jóge fa jigéen ñeeg ñëpp ñëw nañ fii lañ leen wutal muy barab bu yaatu boo xam ne duñ seene kenn te du yàq dara ci njàng mi nga xam ne moom la ñuy jàng ci biir lii lépp nag ak bëggante ak toppante ak gëm sëñ moo ko man waaye bu du woon loolu jàpp naa ne lii ku ko mën a organiser organisation bu mel nii du mën a am kon ñi ngi taxaw foofu duggaat ci biir andil leen li nga xam ne mooy ambiance bi nekk ci biir ak kuréel yi jàng alxuraan ak yi jàng xasida moo xam ñi koy durus moo xam ñi koy kuréel wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.